li nga xamante ni euh, jamono yëpp ñu ngi koy mën a def saa yi ñuy def levée des couleurs mën a waxtaan ak euh, suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Thiès pour ñu xool naka la ñuy jàkkaarloowee ak lii fi ne muy coronavirus bi ñu ànd ko nag ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo yoree tey jii wàllu ce wérgu yaram ci biir dëkk bi te médecin chef taxaw ni démb woon nañu ab daje daje bu am solo ci maire yi boo xam ne Euh, conseil d'hygiène et d'assainissement bu Thiès bi madame Ndeye Soxna mbay jiite mo ngi fawone euh, euh wa ñi nga xamné ñoo représenter représenté euh, région médicale ñu ngi fawone hôpital régional mo ngi fawone ak yeneen kuréel yu nek ci biir dëkk bi ñu waxtaan ba taxawal ben comité Bo xamné liko yëkëti moy yëkkati mooy di saytu bi fu mu toll ak di tek ay djégo ngir xeex ak mom ci lañu décider décidé taxawal opération bu nga xamné ñu ngi ko tuddee xalaamandiir ndiir bàjjo corona doo fi jaar alors ñu am ci nag ay jéego ñu war a def bi njëkk mi ngi tàmbalee ci wër seeti kilifa diine yi waxtaan ak ñoom dem ba léegi am na délégation yuy wër kilifa diina yi ci dëkk bi ndax paaka kenn du ko jiitu ci mbaram te dafa am yenn yoo xamante ni maanaam su dogal dee ca am ci kilifa diina yi la war a jóge tey jii dañu war tere dajaloo yi dajaloo yu yaatu yi te jàkka di am jumaa di am église de am yooya faw nu waxtaan ci ak ñom set lañ mo ci wara amé alors euh, am na yeneen dogal yo xamné jël nañ ko mu jëm ci yu mel nonu lu melni ni waxna wax leen ñu tej ndax su fekkee xalé yi tej nañu école yi ba paré ñu bàyyi leen ñuy dajawaat di fo fenn ci yenn bari bi ah, du am njariñ du am sens donc lolu lolu c'est une mesure qui est déjà effective li ci topp mooy euh, dajale nañu aussi démb étudiants yi ñoom ñoo ñëwoon sax dinañu gërëm si ndax liñ leen jàppale si nu ñu jógee Dakar pour ñibbi si ñoom ñu ñëw maire bi ñu ñëwee di ñu gërëm si dañu yemuñu ca dañu doon xamal ni it pare nañu pour ànd ak vilu Thiès ci lépp loo xamante ni mën na doon yee nit ñi ci nan la ñu war a taxawee ci wàllu feebar bi ñu leen ciy gërëm waaye it noonu la ñu yebale ay délégation fas yéene rencontré bàjjenu gox yi ak képp koo xam ne rek ci biir dëkk bi moo xam ASC wala leneen war ngaa mën a indi. sa wall ci li nga xamné ñepp la concerné ci muy fagaru euh, bala faju di jot alors nous nak ñu ngi ci am yaakaar mu am yo xamné khatim nañ len nit bi jëk moy taxawal comité Bobu. bi euh, place nañ nit mu occupé ko ci diir nous ñu tere euh, dindi nañu autorisation bu annulé nañ ko far nañ ko ba Euh, xew-xew yi daan am ci dëkk bi ñëpp xam nañu meeru Thiès lu xew si dëkk bi dañuy teew bu meer teewul am ñu ko fa teewal waaye xaatim naa aussi ne benn xew-xew bu am ci dëkk bi ci diggante boobu meeru Thiès wala waa meeri Thiès duñ fa teew.